tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara may topp sax samay sentiment si moom desoon na mais dama gis ni ñàkk fayda ndax daf ma humilier devant tout le monde mais ñàkk fayda bu ñu réparé waa tamit sa ma chérie yéen tamit loolu dara non non non ndox du bàyyi yoonam ndox du bàyyi yoonam parce que am na muy demee rek doo si mën a soobuwaat mais est que moom est moom am na ñoo xam ne tamit xam nga seen parents yi dañuy bëgg ñu takk ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg ñoom parents yi seen jabaru bopp. la ñu bëgg ñu seen jabaru bopp. amul waaw waaw mais ba ba ma toppaatee dama xam ne bu doon bu ba léegi ma moom après mu wëlbati ko takkal jabaru boppam. am na yenn fan yoo xam ne noonu dañ ba da xalaatal bu doon nekk ak jabar ji ba léegi am ci la mu bëggoon man est-ce que dina ma toppaat déedéet loolu moo tax ma ñëg te xam ni jigéen laa te xale laa te borom karaw bu ñuul laa ñàkkuma dara xool benn yoon lay bëgg ki mu njëkk a lay bëgg te am na lu ñu def dangay ngay da ngay sangaat sa bopp. ah ba dana bu nekkoon loolu ku tas doo sëyaat. ba da kat génn si loolu de bokkul sëy defal ndànk bokkul. tey boo tasee amatoo yaakaar doo amati. ñaare ci déglu ma ma expliqué la déglu ma ma expliqué la. déglu ma yàlla la amaar yaakaar de ndax tas tas tas tas sëy tas sëy. waaw dama ne loolu mbiru yàlla la yàlla moo lay wax ne da ngay tasa sa borom kër mais da lay takkaat. yàlla moo naan da ngay tasa du benn yàlla dafa dogal ni ba loolu amee damaa damaa damaa damaa toog yeddaat sa bopp li nit naa nit ki da ngay yeddaat sa bopp judduwaat ma nekk beneen nit xam ne jigéen laa ñàkkuma dara borom karaw bu ñuul laa su ma toogee rek la dal comme ni ko samay morom gi defee dinaa am lu baax. ba ma continuer sama liggéey toog rek la day continuer sama liggéey lu ma am bokkoon samay parents ak samay rek ma chérie góor bu la doon doxal góor gu baax gi sëñ Bada góor gu baax gu sell gu mat kilifa te am diine. waa ma chérie déglu ma ma wax la tey ñaari baat gis nga góor bu la dee doxal. Mm-hmm. jeexalul sa dama xàtte. yaa ngi may dégg peeralul say ween. Mm-hmm. ah mm-hmm. lasowul boro borowu la. su laa wàññi dara. déedéet parce que perto voilà perto. perto moo tax. di bàyyi xale yi dama leen di digalaat leen sëñ Bada. di leen bàyyi di gaaw xool plafond ku lay doxaan bala ngaa xool plafond kooku lu yàgg doo ko xool plafond ba mu leer ni la kii takk na la ngay doo ko xool plafond du ñëpp de am na ñu diñ de déglu rek waaw moom laa wax expliqué la waaw déglu chéri ma wax la gis nga chéri diglu sànq ba léegi yaa ngi wax ki ma ki ma nekkaloon mooy waaja moo tax waaw dama la fu mu toog day rëccu man li ma def la yow chéri xam nga la moo tax méttiwu la laa wax mhm. dama lay wax déggu nit buy wax da nga koy déglu baax dama ne xam nga lu tax méttiwu la mhm. man la ndax yow sa daba xatte jeexu ca day ween peeru ci mm-hmm. ndagam yow sa daba xatte jeexu sa ween peeru ci dara du la metti mm-hmm. moo tax ma ne xale yi di leen bàyyi gaaw xool plafond loolu nag waxu mag la la mm-hmm. laaj xale bu góor bu lay gaaw di bàyyi di gaaw xool plafond bu la nee tëdd rek nga tëdd bu la barabara laso la bu la lasowu bokkat ñi say ween di leen daw loolu man xale yi rek laa koy digal man mën naa leen a jur man amul dara lay perte man ku ma ñaan si doom ma may la man man ba ma toogee ba tey juguma man aw ma dara lu may perte man utuma far utuwul ma far man sama góor gi maa ngi sama góor gi man dama leen di dimbali rek. fi mu toll nii dimbali waaw asu doo may sa borom kër gi ndax man ma nekk ñaare ñëw toog sa wet. ñëwal ñëwal ñëwal amul benn problème soo mënee muñ ay toog ay deux ans mën nga ñëw wan bébé laa yor léegi bébé bi am un an ak kenn. non deux ans yi amul problème. moom bu ñu jëlee jël vacances daje. waaw garaaw na la sëñ Bada jox sama numéro ma jox ko sama numéro borom kër ma la sëñ Bada na la jox sama numéro borom kër gis nga sëñ Bada na xale yi bu nekkee Italie na Italie lekk ñu ah, naan ah, waaw léegi nag waaw léegi garaaw sànq daa am lu am solo lu mu wax sànq ci biir wax na la man sànq ba léegi maa ngi déglu maa ngi déglu live bi mu ne am na am na am na góor gooy nekkal ba bàyyanteeg moom boo dajewaatee beneen góor da ngay réccu sax li nga li nga. li nga xamante ne waatee woon ak moom. maanaam sa temps bi nga sacrifié wu si moom. waaw man xoolal ki ma doon génnal bonul de yàquma ko de ku baax la. ki ma taraayit nii bonul ku baax la du ma ko yàq mais yàlla seere na ni xoolal sànq rek laa wax ak sama benn copine boo xaw ma ni woon sax sëñ Bada mi ngi laaj sama benn copine boo xamante ne fële dëkk xam nga lu ma wax heure boo xëyee dee woo sa yaay di ko neexal ma ne ko ndax lan mun ma li nga am tey jigéen bu ne bëgg na koo am sëñ Bada xale bu tuuti laa gis nga sama kër maanaam fëggatuwuma sama bopp dama lay wax ne rek jigéen boo rek dal dara joomu la comme doomu yaan bii li ma am tey dara joomu ko sama kër boo fa ñëwee luy am na sama kër xale bu tuuti laa am ci kër nit ku baax rek mi ngi sama kër te xale bu tuuti laa sama kër yaay damay man Grand Mbao laa dëkk sama yaay Géejawaay dëkk damay toog 6 mois ba 7 mois sama yaay du ma teg bët macha allah parce que yaa ngi sa jàmm am buntu daal nga xam mbokk yu bëri lu ñuy wax ba mu sëyee ba léegi rek moom kay kenn mënatu koo gis boo sëyee da ngay rek ne yaa sa jàmm nag maa ngi ci sama jàmm moo tax booy sëy da rek ne da ngay toog da ngay maanu concentré wu sa sëy ak sa doom dégg naa dëgg de mag ñi bu dee ku góor ki la waaye sëy bu neexee ku jigéen ki la. nga jël la war bu dee xiifoo maro rafle ah mi ngi lay yor yor bu baax te tegu la fitna dóoru la yóbbuwul sa xel mi. toogal nga réglé des fois nag du ñàkk problème mais bu neexee da nga koy gérer kenn du la xamal bu naqaree gérer ko kenn bañ laa xamal. man Bada naka mu ça va ci loo nekk. maa leen di leen ziar lu bari nuyu sama taalibe bi. man noonu laay dundee moo tax man a débat bi jàppale nga kii tuuti. yow sëñ Babacar soxna Ndiaye madame Ndiaye li mu wax loo ci dégg loo ci jàngat. waaw man maa ngi doon déglu live moo tax ma gën a dugg sax wante instant yi comme que mi ci buub moom affaire doo xaw a mën a sori quoi. waaw ah, mais baabi tam nit kenn du ko dagg buy wax danga koy bàyyi ba mu daaneel loolu. ci discipline la soxna si yow man sànq man maa ngi déglu ñëw naa fi lu yàgg toog di déglu ba pare man ma bàyyi ko muy wax nit boo waxee sànq sama taalibe bi mi ngi koy wax nit boo waxee ba ci kanam bu nit di wax danga koy bàyyi mu wax. sama taalibe naka mu. Ah, nuyu naa la yaa ngi si jàmm. ça veut dire mooy man comme que. nit kenn ko dagg nit ko dagg nit buy wax koy bàyyi mu wax fu laax fay dam soxna si baal ngir yàlla war wa rasuuli nit ñi continuer ci débat bi ah Bada maa lay nuyu di la ziar lu bëri yéen ñëpp maa lay nuyu di leen ziar du nuyu soxna Ndiaye bu léegi comme que moom moom miñ ci kii bi rek miñ ci buum man daanaka lu bëree bëri dootoo ci mën a sori xam nga lu tax man bu nekkul woon ci buum dama naan côté benn côté bi premièrement bi def na erreur bi mu demee bay bëgganteeg waa ji ba nga xamante ni waa ji moom nga wàccee ma soxna si ngir yàlla war a suuli doo tëj sa micro bi ngir yàlla ba ma waxee sama xalaat ba pare nga doog a wax sa xalaat quoi Bada Bada man Babacar nga wàccee ma. nga jël sa micro bi su ma waxee sama xalaat ba pare nga wax. am solo waaw nga fàtte Rosalie Rosalie bu Italie. bu ma wàccee ah, Rosalie voilà léegi xaw ne yow xaw ma ne woon yow la nga tëj sa micro bi ba ma pare a lay wax rek. bul jaawlee te del jàng nga liir xool bu baax. ma wàcc man man ñëpp laa ci yemale. nit ki dafay ñëw di wax da ngay tëj sa micro ba nit ñi pare. waaw léegi waxal man nit boo ko fekkee waxal léegi soo paree ma tëj sama micro la bokk. que soit la dernière. waaw. rek nga wax man ma wax dégg nga. ndax man talu may affaire yi benn benn lii wax dëgg fi yàlla. ok Bada man xam nga lan laa bëgg a wax ça veut dire si man li ma doon wax mooy ci benn côté bu njëkk mooy dafa juum sama sama doom baay bi soxna Ndiaye ndax moom nit bu fekkee dangay dund ak moom nga xam problème yi nekk ci cause yi nekk ci biir te erreur yooyu xam nga ne nekkul ko góor ki moo def erreur bi bu fekkoon ko góor ki moo def erreur bi ah réellement jii boo paree moom lu sa xol métti war ngaa a dellu si bu fekkee ko góor ki moom moo defoon erreur bi yow war nga jël sama yëpp nga dem bañ koo topp wante àddina bu fekkee da ngay dund nga xam ne ku góor ki moom deful erreur bi erreur bi mi ngi nekk ça veut dire ku góor ki ak borom wala ko waa ji mën nañ koo nekk ñu liggéey ko man damay gëm ne man ça veut dire man nga ko baal beneen bi ci topp mooy góor ñu bari bada dañu am ñaari gel ñetti gel nekk ak ñoom bada wàccewuma ko nag na leer dañu am ñaari gel ñetti gel nekk ak ñoom ba ça dikk bu ñu nee cëpp senegal dañu xool ki leen gën a enragé ñu takk góor ñu bëri fii moodu moodu yu bari loolu la ñuy def bala ñoo ñëw Sénégal dañu am ñaari gel ba ñetti gel léegi nag bu ñu ñëwee bu ñu nee cëpp senegal dañu xool ki leen ci gën a enragé ñu takk ko wala ki nga xamante ne seen papa moom lañu wax ko leen gën a enrace ñu dem sëy ñu dem takk kooku noonu léegi nag yow mi nekk fii Sénégal nga yaakaar ne yow ay fan yi ñu lay yóbbante wala xaalis bi ñu lay may yaa ngi yaakaar ni yaa ngi yaa ngi topp yaa ngi yaa ngi yaakaar ni yaa ngi nekk à pouvoir bu ñu ñëwee yow la ñuy takk yaa ngi nax sa bopp ndax bëri na góor ñoo xamante ne bu ñu nekk fi bitim réew bu ñu programme seen i ñibbi dañu tànn ñaari gel ba ñetti gel dund ak ñoom suñu nee cëpp Sénégal dañuy dem xoole kan la ci gën a arrangement ñu takk ko léegi nag foofu la problème bi nekk moo tax nag léegi bu nee cëpp day dem takk kenn kenn ñu yaakaar ne kooku da koo trompé wala ñu may ko doomu bàjjanam te jigéen ñu bëri boo leen dund ak góor bàyyi leen nit ñi dafa am ñoo xamante ni seen premièrement seen premièrement dund seen mbokk la ñuy njëkk a takk ba pare doo ko takk mbokki jàmbur. loolu dafa bëri Sénégal am na ñoo xamante nii bala ñoo dem di takk ji kenn ñoom dañuy njëkk a takk seen mbokk dangay gis koo xam ne sax dañ naan la sa yaay naa la takkal sa mbokk mi ba pare à part booy takk diw mi nga doon bëgganteen nga takk wante. yaay jooju gorewul xam nga lu tax gorewul ndax yow diw moomu noonu mi ngi ñëw ci sa kër di la seet si di la may xaalis bu événement tabaski jotee mi ngi lay defal ay yére lu nekk mi ngi la koy defal yow koy boo bëggul ndaw si te gëmoo ndaw si kay kon teel ku ko wax sa début ba wante nit ki mënoo koo gis à chaque fois mi ngi jaabante sa kër mi ngi ñëw mi ngi fóot sa yére mi ngi ñëw sa kër lépp mi ngi koy def te yow gëm nga ne carrément ne kii du la takk sénégalais foofu la problème bi nekk nit ki boo ko bëggee mu leer ni kii nii doo ko takk waroo njëkk ci moom waroo koo nekk di ko doxaan soxna Ndiaye nag comme que yàlla dogal na ni sëyi nga feneen macha allah am na yenn yoo xamante ni kenn mënu la waxaat wante man bu fekkee man carrément wan man dama gis ne sa début ba amoo woon jëkkër dangaa waroon a bësante sa xol nga continuer dund ak waa ji wan na xëy na yàlla tuddul moom nga war a sëyal keneen nga war a sëyal loolu moo tax sama waay da jàmmiñal jaara busub wala mañ sa bi jaara